man nag Ndeye Adama Dione lañ may wax ma nekk école privée Mame Cheikh Anta bi nga xam ne foofu la Lissa Tine génnee fi la doon jàngee ba ki nga xam ne mooy jëkkëram jëlee ko fa ki kidnappé ko génne ko si suñuy loxo ñun ay rakkam ak sëram ñu di ko jooy ñuy adressé ministre de la justice mu jàpp lañu si lii Tine ndax kenn ñun sonn nañu ndax kaaxu jaari sow mu ngi nii dañ koo topp ba mu jeex kaaxu aji saar indi na fi lu dul fay ba allah yow mi diin ndax ay bakkan dem na ci lu ne dem na ci te mont bu lu dara sax Adji Sarr ay mbokkam ñu ngi koy gis di ko xool mais ñun ñu ngi nii mënuñu gis li saatin mënuñu ko dégg mënuñu xam si li mu nekk trois ans ba tey mu disparaître xamuñu si lu mu nekk xam nañ ko sax xaj na mais dañ cee mënul dara ndax jëkkëram moo ko jël yóbbu ko te yóbbu googu mu yóbbu ñun ay mbokkam ak waa famille ak waa Bawol ñun ñëpp ñu ngi toog di ko xaar mais mënuñu ko gis ba tey jëkkëram mel ni moom jigéen juru ko téye ko di ko def li mu neex ne yooyu moom dafa am sëriñ kon kenn mënu kaa jàpp mais sëriñ boobu mu am ak doole jooju mu am yàlla moo ko ko ëpp te yàlla mi fexe ba mu jël ko mën naa fexe ba mu indiwaat ko si ñun kon nag ñu ngi wax ñi nga xam ne ñoo ñu féete kaw ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu ëpp doole ci si loi bi ña ñu jàppale génne suñu doom li saati ndax kenn ñun soon nañu ñun waa Bawol ñu ngi nii lekkatuñu naanatuñu amatuñu jàmm amatuñu salaam sëriñoo sëriñ dem nañ fa fu ñu xam dem nañ fa mais kenn jàppalu ñu dafa mel ni réew mi dañuy seetaan di doxal ak ñun injustice te loolu dafa war a jeex fi ñu toll bu lu dara jigéen la te jigéen waruñu kaa def yenn yi nañu jàppale te yàlla tax. xam ngeen ne kii nga xamante ni moom la ñuy wax Lissa Tine dëkk fii ci kër gii ñu nekk di réew Maawo jëkkëram bi woon daf ko woowoon Dakar waaye depuis ba mu ko woowee le 14 avril 2019 ba léegi ci lañu ñu géej am lu leer ñetti at famille bi lu ñu xam def nañu ko fu ñu xam dugg nañu fa lépp def nañu ko lileen yoon may lépp def nañu ko waaye dafay mel ni ñoom day nekkuñu ci réew moo xamante ni daanaka yoona yoonay fajal nit lii nga xamante ni moom moo la moo la naqari parce que bi mu xewee saisir nañu section de recherche mu def li enquête am bi mu defee enquête am PV bi nga xamante ni li mu wane mooy que ne Modou Yade amul benn yoon bu mu bu mu weddi ne dem na ba ci moom joxe na xaalis bi nga xamante ni moom le chauffeur bi li ko indi war a jot Modou Yade ñu woo ko li ci gën a garaaw moo di yaat fay ay téléphone am génn réew mi ne du wuy ji mu dellusiwaat téléphone am bi mu yoroon téléphone bi mu jël ko toj ko kenn amatul yan preuve yoo xamante nii mën na wane traçabilité fi nga xamante ni foofu la foofu la jaar. loolu lépp bi mu amee PV bi dem si procureur ñu woo Mody waaye procureur dafa wax ne lii ñu wax lépp li ñu wax lépp. malgré li ñu wax amul lenn loo xamante ne nii lu ñu mën a toppee Modou Yade loolu nag xaw nu jaaxal xaw nu jaaxal lool lool parce que ay firnde mënta leer ay seede ay firnde mënta leer ndey mbil ji ci boppam mu ne effectivement Lissa Tine ci ay loxoom la nekkoon ci ay loxoom la la la mujjee seede mënta leer loolu loolu rek li tubaab daf koy wax disparition troublante disparition troublante loolu rek waroon naa tax Modou Yade procureur def ko sous mandat de dépôt ouvrir benn benn enquête judiciaire ci dossier bi waaye loolu procureur defu ko ñu ne nag procureur ana ci fan la sukkandeku ba moom Lissa Tine mu waroon ko moom Modou Yade mu waroon ko placer sous mandat de dépôt pour que li nga xamante ni moom moo soxal PV bi ak fait yi ci wax mu leer waaye mu jël dossier bi ranger ko ci tiroir yi da di koy def classement sans suite classement sans suite mooy lii daal fi la léeb di jaaree tabi géej kenn dootu ci wax bi mu amee ñu defaat ay pexe ba dossier bi ñu ubbiwaat ko bi ñu ubbiwaatee dossier bi juge Mamadou Seck ne dafa adressé benn délégation judiciaire waa section de recherche boobu ak léegi loolu aussi moo ngi remonté le 28 décembre 28 décembre 2021 boobu ak léegi waa section de recherche lii nga xamante ni moom la leen yoon sas pour ñu def ko pour ñu dem ci kër gi nga xamante dinañu mën a toj karo yi parce que Modou Yat jour boobu ci biir PV bi nee na moo ngi doon gas ci biir kër gi bi ko gendarme yi laajee mu ne dama doon suul ay galaaj dama doon suul ay galaaj lan la doon suul la mu doon suul ci biir kër gi ñun jaaxal nañu lan la doon suul loolu juge bi dafa wax ñële pour ñu exécuter loolu dem décaper kër gi waaye loolu kenn defu ko lan moo tax loolu donc ñu ne nag dafa jot ñu yéglu dafa jot pour dossier bi ñu mën koo jël en mai te tamit procureur war naa gën wax doomu aadama yi ne leen li tax mu bàyyi kii ci fan la ko teg en tout cas ñun posé nañu ko ay question ci loolu lépp lan moo tax mu bàyyi ko ginnaaw bi PV bi PV bi wane ne am na ay fait yu bëree bëree bëree bëri yu ñu mën a sukkandeku pour mettre ko sous mandat sous mandat de dépôt kon ba léegi mbir mi leer na waaye loolu lépp dara amu ci loolu nag bu amee ñu ne nag daf nekk ci réew moo xamante ni boo demee ba askan wi yoon bii nga xamante ni moom mooy dogal ci moom parce que les juges prononcent le droit pour le peuple ñun la ñuy war a liiral justice ñun la ñuy war a defal justice boo demee ba yoon boobu mel ni dafa am yoon woo xamante nii yoonu ku ma am ndey la ak ku ma amul ndey yoon woo xamante ni da ngay am numéro procureur wala nga am numéro juge wala nga am numéro magistrat pour nga mën a am li nga bëgg ci ñoom loolu nag day graaw te nag gis nañu bu baax a baax a baax ne am na ñoo xamante ni suli woon nañu fi boobu dossier muy dossier Adji Raby Sarr waaye bi ñu ko souligné ci benn semaine génn ko sax kii nga xamante ni moom la ñu ci tudd ñu convoqué ko ba mu jur ay fukkin ñu ak ñeent yoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ba état sax génne armée bi pour loolu waaw ndax dossier Lissa Tine dafa dafa dafa dafa jarul loolu wala ndax dossier Adji Raby Sarr dafa ëpp Lissa Tine ay mbokk wala daf koo gën a dëkk ci réew mi wala boog Adji Raby ay Adji Raby ndax Lissa Tine daf ko daf ko daf ko dafa am ci réew mi ak ak yelef yoo xamante ni Lissa Tine amu ko dinañu won état wu Sénégal dinañu wan suñu justice ne Lissa Tine ci réew mi la bokk Bawol ci réew mi la bokk c'est pas mi Bawol nga nga dem justice ñu lay atte ñàkkal c'est pas parce que doomi Bawol nga boobu ak léegi ñetti at sa doom réer justice su Sénégal kenn du ci kenn kenn kenn du ci addu c'est pas parce que doomu Bawol nga parce que euh, lépp loo xamante nii dafa soxal Bawol dafa soxal akak ak yeleefu Lissa Tine ñetti at a ngi nii papaam a ngi nii nelawatul yaandooratul daanaka lekkatul yaayam a ngi nii kenn xamatul sax nan lay niroo ci stress kenn xamatu ko bàyyi doom boo xamante ni toujours mu ngi jooy naan sama yaay laa soxla sama yaay laa soxla sama yaay laa soxla ñuy jël et Macky pour responsable le président Macky Sall yilif ñëpp di jël pour témoin les organisations internationales et les organisations féminines ci lépp loo xamante ni mën na am bu bu fekkee fan yiy ñëw ginnaaw bu ñu naanee ndox ba pare bu ñu paasee korité lépp lu am fii boobu makisal comme ni mu ci ni mu waxee woon ci dossier Adji Raby Sarr def ci discours dañu bëgg moom ci wàllu boppam mu génn def discours ci kaawu Lissa Tine parce que Adji Raby Sarr ni mu nekk citoyenne sénégalaise noonu la Lissa Tine nekk citoyenne sénégalaise